fan nga si toll parrainage yi xam ngeen xam nga ni yombul ma bëgg xam ci élu yi nga dem wala citoyen yi ba nga ciy choisir citoyen laa jël ndax man démocratie participative laa gëm <clears throat> benn pourquoi pour élu yi pourquoi pas élu yi député yi damaa toog benn ancien président de groupe parlementaire ñuy wax waxu primaire yeneen kilifa toog ñu ne primaire nañ ko def andi élu yi kooka ne man de président groupe parlementaire laa nekkoon kon loolu corruption lay andi moo ko wax ñëpp dégg man duma dem ci foo xam ne dafa lëndëm man lu leer rek lay dox incha allah damay dem wuti ko xam nga dañu ne quarante cinq mille et quelques jëm cinquante et quelques. mais outil boobu itam am na ñu ne xaalis da ciy dugg de. ma ne. mooy citoyen boobu nit dégg naa ñu naan diw day jaayaat ak dañuy joxe quatre mille ak. collecteur par carte. waaw man de defuma ko. Mhm. pourquoi. ci dëkk bi au non de ngëm da ngay dégg benn leader ne damaa soxla oto huit heures ñu ko cotiseel ko mu jënd pourquoi yoo ngay joxe xaalis pour jënd ay carte man damay wax ak nit ñi xam nga nit ñi lu ñu soxla. bu leen wax mais bokku la Ousmane Sonko aussi man ko tudd ma man maa ko tudd Ousmane mais bokku leen aussi bokku leen <laughs> ay chance